man su man su su fekkee ne moom eh, eh, moom jàngaluñ ko sutura ba àdduna man xam naa lu de sutura àdduna dégg ma ñal moo woo ko rek waaw dooma wuyu de dooma wuyu xam nga loo def wala fi ñu ne ku duul sa kër goro géej fa waaw dinaa ko bàyyil voice mi loo matul ndaw si déglul sax pare rek ma wax ko waaw xam nga yow waaw yow amul a suutura yow yaa ngi mel ni ku demoon néegi góor parce que boo demoon néegi góor loo loo ma def nii doo ko def waaw yow naka nga maa wooyee téléphone nga amuloo ma kay nga xaar bañ gisee waaye nga nekk ci vidéo gi di wax ci internet gi di wax naan waaw mu ngi ne di liggéey kay dafa man lumbe xanaa man maa fi njëkk a liggéey kay itam jàmbur ah yow lu ma la bëgg a wax du ma la ko wax yëpp ci téléphone bi parce que dama la doon woo pour waaye gis boo jotee li xam ne faa laa bëgg gis foog ñu toog waxtaan dégg nga liggéey kay am na lumbe ko fi ma ko fi mujjee fii koo fi gis jaar na ci waaye la ndax yow xam nga ne kooku ndax xam na bëgg na man nit ñi xam ne mu maabal kayitam yi ah yow xamuloo loolu de waaye nga nekk di ratatati di ratatati si rajo gi ngay kale kale mel ni béy buy duul si leket ah di campin campin di toog di daqasoo mel ni man man xaw ma ban façon ngi din ka waaye nag bu soobee yàlla boo déggee lu ma lay wax ni loo mën a ba loo mën a am wëcc ko nga ñëw ñu gisee ndax tooñ nga ma nag tooñ nga ma bi si kanamam yàlla falamére dégg nga nekk fi ne fañ maa ñaanal di ma naan yàlla nañ fekkee déwén yow fa nga wàññi bàkkaar yokkaat bàkkaar ndax fa nga waroon a xaar bañ gisee ñu waxtaan lu ñu waxtaan lii waaye nga ba ko bi ku ma war a xamal xamal ma ku ma war a xamal xamal ma ma dem ma xamal ma ma paate xamal ma ma ndumbe xamal ma ah lii yow la noomu ne lii waaw baax na fa lii daal boo ma déggee daal bu ay caa ñëwoon fekk si ma si kit bi wala foo ma fekk la fa ñu waxtaan dégg loolu rek laa amoon pour wax la ndax ko fay daal